everybody. Hello, dear internet users of TMS TV. It is a great pleasure to serve you and thank you for being faithful of our programs. yéen ñu ñuy béggee di ñu safoo di ñu tiitaroo c'est un grand plaisir un bonheur grandissime même bu ñu fas ne taxaw fii di janoo ak yéen mbokk yi yéen ñu ñuy seetaan depuis Amérique ñu ngi leen di nuyu ah depuis Afrique et partout à travers le monde ñu ngi leen di nuyu. avant de commencer je vous suggère d'aller sur YouTube. à la page TMS TV ngeen abonné bés collège de notification bi pour jot suñu ay information bala ñoo tàmbalee dañuy nuyu Alaaji Thierno Moulay Sow le xalif général des Jin le PDG ñu ngi koy nuyu bu baax di ko jox wàccuwaayam comme toujours euh, lu xew ci société bi rek dañuy toog ànd ci ak suñu ay naataango fas yéene ko waxtaane duñ ci wet nag dañ ciy ànd ak suñu doyen le grand reporter sportif doyen Moustapha nuyu naa la jërëjëf euh, Aji Jaaji euh, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax balaa loolu nag dañuy ziyaare euh, Alaaji Thierno Moule Sow balaa ñu wax lenn dañuy ziyaare Alaaji Thierno Moule Sow le xalif général des Guinée le PDG de TMS bi di ko jox wàccuwaayam di la nuyu di la ziyaar te am mbégte di ànd ak yow ci émission bi di nuyu également sa invité bi di nuyu aussi ñi nekk ci weneen wàll wa ci weneen xarala ga euh, nga xam ni ñoo tax ñu mën di gis. jërëjëf doyen Moustapha ñu ngi koy nuyu bu baax a baax euh, am nañu invité tamit tey ci plateau bi parce que wetuñu ci Aziz Diawo euh, l'africain sénégalais de Kër Massar ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Aziz nuyu nañ la. Ah, fay nañ la jaabi ah, ñuy nuyu adduna gi yëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Kër Massar waaw di nuyu tamit kilifa kër gi. mooy El Hadj Thierno Moule Sow ñu nuyu aussi téléspectateur de la TMS TV waaw mooy noonu daal jaay. toujours je le répète ba nga ñëw commencé dem ngeen YouTube ngeen abonné bés cloche de notification pour jot suñu ay information parce que la TMS TV moom mooy télé bi feeñal lépp pour nëbbuta làmboog njariñ bon comme nous le savons tous ñu ngi ci période élection et génn nañu ci élection législative euh, TV aussi mu ne woon quatorzième législature. vraiment bon depuis lors ñu ngi ci dégg ay affaire ah danañu war a joxe résultat yi ah parti bi moo gagné parti bi gagné wu tendance bi tendance bi et donc bon ñu ngi ci période élection donc doyen Moustapha. Kër Massar kër euh, bon xanaa moom dinañu ko wax. moo <laughs> ah. dinañ ci ñëwaat comme que ñu ngi ci période élection législative doyen Moustapha. Mm-hmm. d' après boo déggee élection législative loo ci mën a wax ak ci période bi mu coïncider. waaw euh, li ma ci mën a wax mooy ci période bu mu coïncider man ci lay njëkki mooy période bi mu coïncider baaxul parce que y a eu beaucoup parce que xam nga période bi dafa nekk période ndox mooy maanaam nawet mm-hmm. te gis ngeen keroog euh, jour vote bi am na localité yu bëri yoo xam ni au Sénégal xaw na perturber vote bi mm-hmm. boo jëlee localité yu mel ni bambay Fatick dagana extra extra xaw na ko perturbé moo tax euh, beneen yoon gars yi bu ñu programmé ci élection législative ñu tenir compte ci nawet bi xam nga période bi moom waxuma la nawet sax mais ci digg nawet la ñu nekk actuellement muy le 31 juillet jëm mois d'août donc loolu ñu ci bàyyi xel bon li ma ci man a wax mooy période bu am solo la pour taarixu Sénégal xam nga député euh, dafa am solo ci ab réew euh, ki nga xam ni lépp lu ñu bëgg a def ci Sénégal Euh, assemblée la ñuy wote li ñuy wax ay budget maanaam ci lañ leen di nattal euh, koppar yi nga xam ni jëm ci wàllum santé wala ci wàllum agriculture wala ci euh, secteur bu mën a doon. Mm-hmm. maanaam mooy base pour ñu mën a pour ñu mën a génne koppar yi. Mm-hmm. il faut ñu natal ministres yi seen i koppar ci seen i ay ministères. Mm-hmm. moo tax député il n'est pas n'importe qui. député dafa am solo waaw su ma nee nag député. waxuma député yi nga xam ne ils sont à la solde de leur leader. Mhm. comme par exemple nga gis député bu nekk à l'assemblée. Mhm. di naan man député ji jaaji laa jaaji mooy sama leader. Mhm, député on dit que le député il doit être le député du peuple. nekkal fi askan wi. nekk ci jafe-jafe askan bi taxaw di leen xeexal mais député bi nga xam ni doo ñëw à l'assemblée nationale doo fekkee vote projet de loi doo fekkee vote du budget. ah yow loo fay nekkee heure boo ñëwee tàccu ak nalaw rek. Hmm. je pense que kooku mérité wul euh, nekk député à l' assemblée nationale. te xam naa ne bu ñu ñëwee ba ci biir waxtaan bi sax euh, maa ngi dégg suñu mbokk waa Yewwi ak waa Benno Bokk Yaakaar ku nekk yaa ngi jubilé naan euh, da ngaa mais dinaa ci wax loo xam ne après ay ay ay ay contraintes la ak ay impé impé inconvénients yoo xam ni. Hmm. législature bii ñu jëm am na ci député yoo xam ni c' est sûr que danañ. gagné euh, mais bu ñu demee assemblée boo moytuwul daañu changer seen seen seen veste ci biir assemblée bi. Mhm. dem ci beneen camp ngir xaalis. dem ci beneen camp ngir xaalis parce que yéeme na bon benn benn arène la boo xamante ne lu nekk am na ci. arène mhm. Aziz. Mhm. quand parle du député. lan nga ci mun a wax député naka la war a mel. Oh, maa ngi jaajëfal jaaji avant question bi xam nga loolu sax boo xoolee question boobu. suñu grand doyen xawoon na ko éveillé tuuti maam avant tout député warul mën a taxaw di naan man député wu jaaji laa comme ni ko grand doyen bi waxee maam député dafa war nekk député du peuple. ah nga nekk député jaaji bu riis tabaar fakal mm. waaw. xam nga léegi boo nee léegi député du peuple léegi cest à député bi minimum des choses maam da nga war a xam les mots de la société. Mm-hmm. am député da nga war a xam maanaam sa société. jafe-jafe askan wi jafe-jafe. ak ki ko sol xam nga moom suñu kàllaamay koco a des mm. yaa bi dañ ko war a xam te bu ñu nee nag jafe-jafe askan bi munoo xam jafe-jafe askan bi fii ak jege bi mm-hmm. mais munoo nekk naa man par damaa nekk débuté rek léegi jeex na commencé dugg dugg sama kër kilim bi commencé tax sama salaire voilà quoi mm-hmm. xam nga wala ne député parti laa wala député diw laa maam député da nga war a jege askan bi xam nga askan bi soxla tam mm-hmm. bu ñu demee léegi assemblée bu ñu tegee léegi ay loi wala war a war a génne budget ah ngir euh, ci ci benn boor fekk yow xam nga dèjà yow foofu noonu xam nga maanaam lu jafe-jafe yow foofu noonu. la fa war a ne. comme par exemple ma jox la benn exemple ndaw amoon na temps campagne yi amoon na benn parti xaw ma coalition laa mën a wax mu ne woon ñoom bu ñu demee assemblée dañuy wax maanaam comme étudiants yi ñu yokk seen bourse ba sama mbokk étudiants yi sax fippu sax di di di partage vidéo lu bëree bëri bëri bëri sax paam mm-hmm. nga paam nga genre yooyu noonu genre yooyu noonu maanaam moom moom mooy moom moo di reflété maanaam euh, wóolu député maanaam député da nga war di xam maanaam yow askan bi lu mu soxla en mm-hmm. mu soxla nappkat bi baykat bi ndongo daara bi yaa ngi tax sax doon gënoon baax sax député balaa ngaa naan da ngay wax doo bëgg a wala balaa ngaa dem élection sax nga won ñu programme mm-hmm. pour won ni carrément man jege naa askan bi xool naa askan bi lu mu soxla xool naa askan bi seen jafe-jafe ah su ma demee léegi assemblée lii laay proposé lii ak lii ak lii mais est que def nañ ko est ce ñëpp def nañ ko waaw c'est important c'est une question à poser doyen Moustapha aussi foofu parce que léegi euh, député yi da ngay gis des députés incompétents mm-hmm. incompétence boobu tamit lu tax ñu ci euh, fal député yi mm-hmm. waaw xam nga dañuy wax euh, l'apparence est toujours trompeuse mm-hmm. xam nga gars yi bu ñu nekkee candidat ba peuple bi di leen fal di leen jox seeni baat seen kaddu xam nga kumpa lay doon doo leen xam mais une fois ñu fal leen ñu dem à l'assemblée après ci askan bi naan càmm. d'ailleurs mooy ce qui s'est passé boo xoolee ñu lay wax ni euh, vote bi presque ci dans à travers le territoire national amul benn affluence parce que population bi dañu dem ba dañu mere politiciens yi yow nan nga mën a imaginer un député buy am salaire trois millions et quelques. mille litres carburant passeport diplomatique il se permet di dugg ci ay affaire ay faux. Euh, ay faux billets ah passeport mhm. mais kooku xam nga ni du modèle du référence comprendre kooku du modèle du référence donc mu nekk loo xam ni euh, vraiment lu dooy waar la parce que député euh, boo ko nekkee il y une conduite à tenir mhm. am na noo war a taxawee Euh, taxawaay bi mooy taxaw responsable nga bañ fexe ñu décrédibiliser la désavouer désavouer la parce que bu ñu la décrédibiliser rek dafa mel ni assemblée bi la ñu dé décri euh, la ñu désavouer te xam nga treizième législature bi ñu génn pour man jàpp naa ni moo ëpp scandale depuis assemblée nationale nekk parce que xam nga assemblée nationale euh, bi ñu koy njëkk créer créé mi ngi tuddoon assemblée nationale territoriale mm-hmm. temps boobu je me rappelle au Sénégal premier gouvernement bu ñu njëkk a taxawal fii. Mhm. muy temps Mamadou Dia le gouvernement faisait partie. il n'y avait que dix ministres de la République ñoo ci nekkoon mhm. léegi on nous parle de quarante ministres on nous parle de cinquante ministres mais temps boobu dix ministres ñoo ci nekkoon ay ñoom Amadou Makhtar Mbow yëpp presque ci gouvernement boobu lañ bokkoon ñoom Valdiodio Ndiaye ah ñu ci ci ci gouvernement lañ bokkoon donc assemblée boobu dafa nekkoon assemblée boo xam ni Euh, dafa amoon caaj mais assemblée boo xam ni mais ay boroom xam-xam ñoo ci nekkoon. Mhm. ñoo xam ni ñu ay ay ay bu ñu la ay président Lamine Gueye ah ñooñu euh, vraiment c'était toujours un plaisir nga nga nga leen di déglu. di leen côtoyer mais pas euh, li ñu gis actuellement au Sénégal nga xam ni c'est des députés qui sont à la solde de leur de leur de leur patron de leur leader. Mhm. donc vraiment c'est c'est c'est malheureux moo tax askan bi boo xoolee ñu baree bari. jaay euh, ji génnuñu dem voté ji. Mmh. quelque chose de très député aussi parce que bon dañu koy wax bu la nit ñi wóoloo askan wóol la surtout askan ba denk la dara waroo leen wor. Mmh. te tamit dañoo gis léegi euh, ñii politique. Mmh. wor dafa yomb ci ñoom. maanaam man je ne comprends pas. léegi ko wax politique sax suivre branche politique mu ne la non non. Eh, mooy loolu mensonge. mensonge wor nit njublang dugal génne te organe politique notion wam dëgg-dëgg du loolu mhm. léegi nit ñi politiciens yi dañoo jiital seen intérêt personnel mhm. politicien mhm. quand paax parle politicien ci boppam waxuma député waxuma ministre waxuma président naka la war a doxee ci askan bi avant tout avant tout jaay man dama lay jaajëfal ah, di la wax ne avant tout si nga bu suñu homme politique yi fi nekk actuellement yoon bu mujjee yàq maanaam boppu sénégalais mhm. boo nee boo ba maam nit dafa waroon taxaw bu maam boo taxawee naan politicien la dafa waroon nekk fierté au fait mhm. fierté la waroon nekk parce que un homme politique c'est juste quelqu'un qui est prêt à servir en fait ñu mhm. ko xam ne dafa pare sacrifier léppam pour servir politique mooy c'est c'est c'est l'art de gérer la cité la cité mm. mais ba ci Sénégal sax la mu ñu ko génne doon politique pour gën a woo nit yeneen yi yëpp ma pour gën a woo woo woote ñi ñi ci xidma ci maam ci ngëm. Hmm. yaa ngi dégg mais malheureusement. donc fii nii ñun Sénégal fii nekk gars yi politique juste pour seen poste. Hmm. dañuy politique juste pour téye yenn poste yi. Hmm. dañuy politique juste ah déjà sax xam nga boole benn affaire Sénégal rek ngay gis jaa ñi nekk président. amiin ah mu ñëw far Aziz Aziz doon ministre. suñu waa kër di tàccu. di tàccu parce que ñëpp ñoo ngi yaakaar ni. waaw parce que ci ndox nga nekk. waaw day baax parce que Aziz léegi doon na ministre kii mooy xalaat chef de cabinet kii mooy xalaat peut-être man mun naa yor ma benn affaire ci ministère bi kii maam yaay maam mu doon benn tiers alors que loolu noonu benn charge la en fait non charge la sa diggante yow ak nit ñi dogu ma la dogu ma la sa diggante yow ak sa borom dogu ma la oustaz mën nañu seede parce que dama dégg benn imam bu baax muy wax mu ne yonent yàlla Omar kii nii euh, saxaaba Omar mhm. ba ko ba ba mu doonee président njiit xaw ma mhm. euh, dañ ko fal ba pare bañ ko falee nag ba mu gañee mu dugg ci néegam di jooy mm-hmm. soxnaam fekk ko xaw ma kan fekkoo ko ne ko lay jooy mu ne dañ maa jox loo xamante ni euh, lu nekk mën na ma cee dal mm-hmm. ba euh, tali sax nee na tali bu ko defarul bëy bu ci dox ba tànkam damm wala dara sax yàlla daf ko koy mm-hmm. laaj pour diir charge bu njiit am charge bu bu ñu la dénkee dénk dénkaane voilà pour dire rek pour la parce que tamit nañ waxante dëgg fii du ñu dénk dara ngay noflaay ñun ñuy dee. te mm-hmm. ñun nga war a jariñu. gis nga politiciens yi yéen ñun ñooy seen buur. Mm-hmm. ñun ñoo leen fi teg ñun ñooy estaar yi ñoom ñun nga ñu war a liggéeyal continue. Mm-hmm. non non non wax ji pour nga wax ji woon rek maanaam toujours moo ci responsabilité en fait responsabilité maanaam politique dañu def dafa waroon nekk benn acte bu noble la sax déjà acte bu noble la mais ñun ñoo commencé yàq. du ma ne sax ñun mais homme politique maam ñu ne moo nekk sax di yàq image politique ba yow maam moo tax sax jàkkaarloog te par exemple da ngay politique. Mm-hmm. waaw si dañuy boo nee da ngay politique xam nga lu ñu njëkk a wax nga baal ma ci kàddu gi kàccikat la. Mm-hmm. la fi nekk maam gis loolu noonu loolu noonu dem ba def ci boppu sénégalais moo tax sax loolu bokk na ci impacté population bi nga législative yi vote yi bëri yu maam ñu voté ji bëriwul. bëriwul. loolu benn la ci comme tan un grand doyen loolu ma xaw a laal tuuti maam grand sama doyen suñu sëriñ mi. sànq mu laaloon mooy côté ñaax bañ a vote bi maanaam loolu bokk na ci ci wax am lu ñuy dikk lu ñuy digle ak bu ñu demee ba téye lu ñuy mel. maanaam mm-hmm. du benn. Mm-hmm. loolu bokk na ci ñaar gars yi dem ba tayal ci poli ci wàllu wàllu waxum politique maanaam non seulement tamit ak période bi maanaam nawet yeeg yooyu noonu. bokk na ci yaa ngi dégg. Mm-hmm. ba pare beneen affaire tamit mooy lu gars yi fàtte mooy maam maam maam ma daa am lu xawoon des mooy gis ma municipal yi. municipal yi. da nga gis benn paa bu duggee mun na fa def cinq minutes à sept minutes pour voter parce que day am communal am départemental. Mhm. yaa ngi dégg ñenn ñi sax est que amul ba trois mu juumlee parce que day am ville mu juumlee xaw ma nag. Mhm. waaw waaw day am waaw yaa ngi dégg Kër Masar Kër Masar boo amee ñaar. may xawaar naa Dakar Dakar ñaar la war a am. Mhm. yaa ngi dégg man léegi Kër Masar boo amee ñaar ñaari vote nga doon def. maam municipal da nga doon voté maam da nga doon voté commune bi nii ak département bi. ah d'accord ok léegi léegi loolu léegi da doon rang rang da doon gudd mais dañ doon yàgg ci biir ak paa te aussi dogu maga carte électeur yi hmm. ñu bari jëli wuñ ko ba pare ñoom ñoom jël nañ sax mais non votant lañ fa def ñu bëri jël nañ sax mais non votant boo la laajee lu tax mu ñu laa wax lii moo tax. lii ma man loolu def na ma cas doyen Moustapha. foofu bëggoon naa la ci foofu bëggoon naa la ci leeral. Hmm? defal leen yëpp non votant mhm. parce que dañ dem outil carte d'identité mhm. bi ñu ñëwee fekk gars yi fermé nañ mhm. registre bi nga xam ni ci ngay ñëw inscrire ci liste yi nga xam ni moo lay permettre sa di dire il faut nga dem ci liste yi ñuy voté pour ñu mën la inscrire mais bu fekkee ni tu n'es pas inscrit ci liste bi tu as ta carte d'identité doo bokk ci vote bi mais waaw mais c'est normal mais c'est normal parce que ñu baree bari déposé nañ am seen carte d'identité fekk bi ñu ñëwee fekk tëj nañ liste yi ñuy voté. liste yi bu ñu ko xasee ba ferme mm-hmm. tu n'es pas inscrit. si da nga teewaat ta carte d'identité mais tu n'es pas parce que yor sa carte d'identité. Mm-hmm. ça n'a rien à ak inscrit ci. ñi war a voté ci liste yi ñuy voté. Mm-hmm. xam nga xam nga le vote moom. Euh, tout citoyen war na ko def. mais am na ñoo xam ni xamuñu wala ñu am na ñoo xam ni ils préfèrent bañ a dem inscrire bañ a voté rek abstenir yor seen carte d'identité mais ce qui est normal pour tout citoyen sénégalais mm-hmm. danga nga war a ut sa carte ba pare ñëw inscrire mm-hmm. mais foofu aussi moi je pense que état bi war na aussi xoolaat mbir yi mm-hmm. nga xam ni par exemple liste yi duñ koy teel a tëj sa diir bu ñu demee ba élection yi des un mois ñu door a tëj liste yi mais liste yi dañ koy teel a tëj par exemple à trois mois des élections wala à cinq mois. waaw la ñu teel a tëj dañuy teel a tëj affaire yi. bu ko defee ñu bëri du ñu du ñu ñu dem voté ji. boo xoolee sax presque législative yi nii on a constaté que presque beaucoup de jeunes n'ont pas voté. on n'a pas senti la présence des jeunes. des jeunes. jeunes yi les jeunes n'ont pas voté. parce que les jeunes ñi ni dañoo sonn ci naxaate bi. ñu jeunes yi ñoo sonn. gis naa même jour vote bi gis naa plage bi dafa fees tel plage u Cambérène bi. parce que jeunes yu bëri de temps amul doyen Moustapha ah, te dafa cher. mais grand Moustapha grand nga man man am na ñoo xam ne daal xaw ma moo leen dal maam seen carte d'identité dañuy mën a voter. Mm-hmm. ñu dem vote bi. Mm-hmm. ndax déjà lépp c'est c'est c'est ma on c'est organisé quoi ci ci ci carte d'identité bu demee mais bu gis turam ci liste bi. man gis naa ñu mu dal maam boo xam am xaw nga benn nga ne ma non non inscrit bi expliqué ko mais am na ñoo xam ne ñoom comme par exemple man maam sama carte nii. dem ci bureau de vote bi dem sama tur duñ ko gis ci liste bi. damay dëggal loolu. Mhm. parce que gis naa ñu baree bari ci vote bi am nañ problème bu mel noonu. Mhm. bon loolu nag euh, ñun nous ne sommes pas en mesure. Mhm. de donner des éclaircissements par rapport à ça maanaam ñu leeral lenn ñi ko war a mën a leeral mooy ñi nga xam ni ñoom la ñu dénk. wàllum élection bi muy Sénat. loolu ñoom ñoo war a leeral mbir moomu. je pense que ñoom ñoo habilité pour leeral mbir moomu nous som des citoyens sénégalais yor suñu carte yor suñu carte électeur pour dem voter ji mais par contre loolu je pense que dañ ko war a déplorer dañ ko war a ñaawlu parce que tout citoyen sénégalais boo inscrire ci liste yi vraiment je pense que boo amee intention dem voter ji da nga war a dem voter ji soo ñëwee te gisuñu la ci liste yi rek ça veut dire que ak am na mhm. waaw loolu loolu loolu vraiment question bu ñu war a poser waa Sénat la waaw loolu daal laa amoon lu may wax ci. c'est une question à poser ah jëmale ko ci waa Sénat aussi quoi am na yéeme na trop. aussi bon du ñu terminer te waxuñu tamit ci euh, tendance bu coalition yi di def defante bi kii wax na li kii génn wax na li kii génn wax na li mais loolu politique la rek loolu politique la loolu du. avu bu ñuy def pour que ñoom dañoo gagné wala parce que ñoom nekkuñu en mesure pour xool ki gagné wala gagné wu. manipulation la des des choses pour gagné kii def naa parce que gis nañu mii muy Touré génn wax. Barthélemy Diaz génn def. réplique mhm. voilà si mais tamit bataille ñoo boobu lan nga mën a jur fii ci société bi. ah li mu mën a jur ci bi mooy li li gën a garaaw mooy la violence. Mhm. violence. bu mag a mag la mën a jur ci société bi parce que xam nga manipulation fu mu amee rek confusion day am xam nga déjà yaa ngis fan yi waa yeewi ñi ngi wax ñoo gañe waa benn bokk yaakaar ñi ngi wax ñoo gañe léegi nag ñi ngi déglu commission de recensement des votes d'ici ce soir ñu joxe les résultats provisoires ajjuma waa conseil constitutionnel conseil constitutionnel joxe résultat définitif yi waa léegi conseil constitutionnel bu ñu joxee résultat vendredi mais ñaari camps yi doon réclamer ku nekk naan yaa gagné bu bu fekkee ne kenn ki. gagné wul mais mën na mën na déboucher. ci violence émeute yu mais mën na déboucher ci te te te loolu nañ ci bàyyi xel de nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax te man ni ma gisee nii ragal naa ni ci ci ci affrontement lañ jëm. ci mhm. biir semaine bi ragal naa ci affrontement lañ jëm parce que li ma gis ñuy def nii. Mm-hmm. ku nekk yaa ngi réclamer ni yow yaa gagné. Mm-hmm. et puis damay déplorer aussi l'attitude de Mimi mm-hmm. parce que keroog ca guddi ga mu tenir un point de presse ay une heure du matin deux heures alors que moom elle n'est pas habilitée à donner des résultats. te yow affaire yi ci ay décompte rek lañ nekkoon. nga jékki-jékki rek génn de nulle part organiser sa point de presse ak say militants nga ne yow laa yow yaa gagné loolu je pense que day indi coow ci réew mi day indi confusion donc defe naa loolu aussi à déplorer quoi. bon xam naa ni ils ne l'ont pas fait gratuitement. Mhm. dañ koo def par stratégie. parce que tubaab bi dañu ne. toute action est motivée par quelque chose. Mhm. Mhm. nit lu mu def rek am na lu tax. am na lu ko waral Aziz. naka nga gisee bataille d'opinion bi xew ci politique. Oh, instant yi nii boo xoolee ci ñaar la Yewwi ak Benno Bokk maanaam loolu dafa njëkk a commencé ci bataille entre ñaar nit ba pare. boo xoolee nit ku ñuy wax Ousmane Sonko. boo xam ne macha allah instant yi nii référence ko moom ci la maam déclaré en quelque sorte maam guerre Macky Sall ndax moom dafa jàpp ne moom baaxul maam Sénégal ba mu créé parti politique mu gën a yéemiti maam dootul nekk sax moom ak Macky mais instant moom parti politique am ak mu tudd peuple nu mu pas pas peuple Benno Bokk Yaakaar loolu xamalan ah eh? waaye yeew la la société contre Benno Bokk Yaakaar léegi boo xoolee léegi yeewi tamit ñoom ñoom waxoon ñoom ñoom lu ñu réussir. Mm-hmm. mooy ce qu'on appelle mooy euh, en science politique mooy tactique de des meilleurs ennemis. Mm-hmm. maam damay def tout ma koy sànni lu ñaaw maam damay def tout maam moom man nag lay waxal. Mm-hmm. pour gars yi mën a fàtte yeneen opposition yi. ma maam yeneen coalition yi. moo tax boo xoolee ci biir législative yi le leader euh, de la grande coalition yeewi askan mi nee woon à part askan ñeneen ñi ñëpp. ay oppo maanaam du ñu ay opposition mais dañuy dooleel parti au pouvoir. xam nga ndax yaa ngi fàttali. Hmm. loolu lépp da ngay comprendre parce que genre euh, en science politique moom la ñuy wax tactique. des meilleurs se faire valoriser quoi plus de propagande plus de te ñoom ils l'ont réussi. moom moom franchement moom moom dama ko nangu. jàll la jàll waaye yeewu askan bi ils l'ont réussi maanaam ba yow boo gisul yeewu askan rek. da ngay xalaat opposition ah, hmm. boo xoolee waa coalition Aar Sénégal nee nañ Macky Sall les serviteurs bu Pape Diouf Fall nee nañ maam beneen coalition boo xoon ne bu dul askan rek daan te loolu noonu ils l'ont mhm. man dama jàpp lépp politique la et voilà bon concernant concernant nag mais impact yi mu mun a jur dafa dafa dafa bari te tamit man lii lii xeeñ na narut jàmm de parce que tamit mhm. euh, bennoo bu génnee wax mhm. ne man maa gagné bu ñu joxee résultat yi bu gagné bennoo dina opposé wu euh, yaa nga tere moom yaa nga tere yaa nga na jàmm xew mais lii xeeñ neexul très sincèrement c'est un grand doyen nu mu ko waxee moo am man pëccuwoo yi déjà déjà déjà ñoom ils ont ils ont ils ont réussi une chose. Hmm. cest à ak yeewi ah yow daal yow yaa ànd ak askan wi. Hmm. waa bennoo ñeen ñoom peut-être sax dañuy naan sax nasaraan parce que sax nga yeewi parvenir na maam ba maam indi communication boobu noonu ne comme bennoo nasaraan bi la fi nekkal. Hmm. borom ñaari tur la fi nekkal. loolu genre yooyu yëpp dégg nañ ko fi. yaa ngi léegi instant yii nii na nekk nga léegi waa benn bu ñu forcé te caaxaan dafa am maam ñëpp xam moo gagné mais gis nga benn bu forcé nii ba yow majorité tu conçois ça tu conçois ça quoi non loolu moo am am loo ne dañu ko négliger man man campagne yi man maa ngi woon ci coalition Aar Sénégal mais mais mais mais ah. yow naka nga mënee ne hmm. yeewi moo gagné te yow ah. bokkoo ci ñuy ah. saytu affaire du mais il faut attendre ba ñu génne résultat yi may la wax ji yëpp xam nga li yëpp xam nga amuloon Mm-hmm. waaye doyen comme lu mu wax rek ba Mimi Touré defe point de presse am boobu noonu. du mm-hmm. joxe résultat est ce que Mimi am droit mu joxe ay résultats naan ay trente sur quarante six yëpp benn boo ko benn boo ko yaakaar moo ko joxe. non non non est ce que moom am na droit bi. non mu ñàkk noonu noonu nag. mais si fii da ngay xool les faits sociaux nga xool ne carrément boo xoolee nga xam ne élection yi maanaam ma ne sax yeewu moo gagné mais c'est dire la personne de Sonko moom moo gagné élection yi. parce que gars yi dañoo parce que voté wuñu parce que dañoo xam député wala kii ils ont voté parce que ils. ils aiment Sonko Sonko waaw. voilà c'est discours de Sonko et consort. la société élection yi nii nañ bàyyi caaxaan. Mhm. benn maanaam Macky Sall son excellence ñun man message ma lay lancé pour Sénégal mu loger dans la stabilité en paix mooy maam. ñoo ñoo wër la di la jay nañ bàyyi caaxaan bu ñu nekkee. élection yi yee moo ko gagné. man je suis moi moi je suis dans la coalition Aar Sénégal. Mm-hmm. mais dama nangu ndogal lu ma lii parce que genre population mooy fal population bi benn yeewi askan la jox kàddoom. Mm-hmm. la ko jox loolu dañ ko koy mu avancé. dañ ko koy nangu oh. boo dee jongante kat da ngay nangu di def fair play di nangu yàlla dogal. Mm-hmm. képp ku ci mënti gagné rek yàlla na gën ci yow. te tamit ñuy ñaan Sénégal am jàmm lépp lu mën a xew. et nañ ko teg ci yoon jubal ko bu ñu bëggee réew mi am jàmm. di ñaan tamit foofu di péncum euh, ndaw réew mi. dañoo bëgg beneen changement ndaw ñi gis ci seen bopp xiif bi jeex suñu wayjur yi toog ndaw ñi di liggéey di leen andi di leen di teral loolu la ñu bëgg beneen climat la ñu bëgg Sénégal am ko bon émission bi nag neex na trop mais temps bi dañoo xoj doyen Moustapha ñu bàyyi nga tàggatoo waaw ñu ngi lay jaajëfal euh, jaaji di jaajëfal sa invité bi di rafetlu également waxtaan bi surtout thème bi nga indi mhm. mu nekk thème d'actualité li may wax rek mooy nañu fexe Euh, ba affaire yi am transparence mhm. euh, bu loolu mooy tax euh, jàmm am mhm. loolu mooy tax également conseil constitutionnel su publier les résultats benn coow du am di jox suñu mbokku internautes ak suñu mbokk téléspectateurs yi ci yeneen i waxtaan jërë ngeen jëf jërëjëf doyen Moustapha moom dama koy wax c'est un plaisir ma bokk ak moom plateau parce que doyen la daal en quelque sorte doyen la ñu bàyyi nga tàggatoo waaw ah, jërëjëf Diagne di jaajëfal tamit suñu doyen Moustapha vraiment c'était un plaisir un immense plaisir même un immense un un plaisir insatiable d'ailleurs pour moi. franchement jëlee naa jàngee naa lu bëri nag ci doyen moom moom xam naa sax après foog ñu gisee sax suuf incha allahu <laughs> kese la mooy de nos jours la mhm. mhm. te nga jeunesse bi dafa song ba jeex tàq. mu la am loolu foog mu leer. moo am moo xam nga daa nekk maire. moo xam nga nekk député ak koo mënti doon. boo avancé wul jeunesse da koy dénoncé. te day pare carrément pour que sa combat personnel. man loolu c' est un c' est juste un petit quoi un petit message à tous les les les, les hommes politiques. en quelque sorte l'autre chose aussi mooy ñoo ngi naan du courage maa ngi wax avant tout félicitations à la coalition Yewwi Askan Wi xam nga si yéen wax tamit du courage aux autres coalitions. Mm-hmm. durant les législatives que ça soit mooy les serviteurs. mais comme si que yow Yewwi Askan Wi gagné na. non parce que loolu dafa am gis nañ ko. Aziz tàggatoog tàggatoog temps bi ñu xoj waaw parce que waaw tàggatoog beneen yoon dinañ ci ñëwaat maa ngi jaajëfal ñëpp jërëjëf l' africain c' était Aziz Diao l' africain sénégalais de jaajëfal ñu ngi koy jaajëfal bu wér di féliciter aussi doyen Moustapha ci nomination bi ñu ko defaloon récemment hmm. moom nga ñu jox meilleur reporter euh, reporter sportif au Sénégal ci lig ci Ligue 1 j'espère mm. voilà di ko ñaan yeneen mm-hmm. yeneen yeneen yeneen bokk ci yeneen toftalu ci di gërëm ñëpp ñu newoon ci régie bi amuñu seen fay mm-hmm. vraiment bay Mbène euh, sonal naa ko torop mais amuñu fayam naa Alioune moom béggee nañ ko jaar nañ ko oustaz mm-hmm. du vingt-et-unième siècle ma nga ne toog ñu ngi koy nuyu borom Thiès rëf jaar nañ la di nga nuyu yéen ñëpp di nuyu Alaaji Thierno Moule Sow bu baax a baax di ngeen jox dig daje beneen yoon sur la TMS TV Est-ce que tu es Vraiment, ici, c'est quelque chose de merveilleux e quelque chose d'excellence aussi. Mm. di Nous avons dit que nous jëf